taw bi tawati mbedd yi taawati tolof tolof yi tàmbaleeti fii ci diwaanu Mbàkke bool tey ji ci fajar gi bi juróomi waxtu demee ba toftal fanweeri simili la taw bi daal di door ñuy dem ba juróom-ñeenti waxtu ñu génn ci mbedd yi mbedd yu bëri nag daal di taa fii ci ginnaaw raay buntu kër sëñ Modou Lo Dagana dafa taa ba boo fay jaar ay mool lan tegale ñu ne déetawaay ñu jël jakarta jaar ci route nationale bi dem ba buntu cinéma daal di jàdd sunu ndeyjoor wutali mairie ba foofu nag ban fa yeggee moom la ko dalee buntu mairie ba jëm ca Sénélec ba jàpp route nationale ba jëm ak xewar kenn mënu jaar wala boo fa jaaree da ngay xuus ñu dem daal di tourné waat wër dëkk bi dikk ba ci buntu centre de santé bu Mbàkke Bool foofu moom dugg fa jéggi siraat lay doon ñi nga xam ne ay jaaykat lan nekk ci buntu ba ñoom kat fi mu toll ni coow rek ngay dégg ñu ci bëri nag di jéggi ci mool ngir dugg ci biir centre de santé ba waaye nag ci ginnaaw ga dañoo dugg ci mairie bi ban fa demee nag fekk ñu fa maire bi fekk ñu fa ministre Gallo Ba waaye dem nañ ci ki nga bi nee na assainissement du mairie moo ko gàddu xanaa kay day dem jubale ci état bi wala sax mu signé ay partenariat waaye sax ñoom mairie bu Mbàkke Bool def nañ lépp laataa nawet bi di door ndaxte kat fépp foo xamante ni bii ndox dafaa waroon a jàll di ay canalisation dem nañ fa nag sekkarti ko netewaayu ko ba mu ne boy Mohamed Seck nag dikkaat na ci ndox mi nga xam ne moom moo taaw ci Mbàkke Bool moom nag nee na daal moto pompe yi ni bii ñoom ñooy ŋàcc ndox mi defar nañ ko ba mu ne boy ba yi fii 48 heures lépp moom mooy Mohamed nekk nag séq waxtaan wu yaatu ak seen bii di seen set dikkaat na ci li nga xam ne moom mooy ramassage d'ordures yi di for mbalit mi dikkaat na ci estade bu Mbàkke bool kon nag ñu déglu Mohamed Seck ci micro Youssou Niang. merci Youssou comme ni ma ko waxee tout à l'heure ñu entretien mhm. en off d'abord je tenir à clarifier une chose. Mhm. voire deux choses. Mhm. mooy souvent on interpelle la commune sur la question de l'assainissement. il est bon que nous sachions l'assainissement de compétences transférées. Mhm. Les mairies ne s'occupent pas des questions d'assainissement. Même l'État et ça, l'assainissement de lourd mhm. Souvent, ce sont les partenaires qui financent la question, les questions d'assainissement. Mhm. Néanmoins, la commune s'est déroulée en tout cas, pas ses propres moyens, avec ses partenaires, depuis toujours, pour avoir au moins un réseau d'assainissement mais c'est un réseau partiel, qui, en tout cas, ne prend pas en charge l'ensemble de la commune de Baké. Mhm. Et actuellement, nous sommes également en train de travailler mhm. pour étendre ce réseau-là dans les autres quartiers. Mhm. Maintenant, s'agissant de la question des inondations, il, faut, il faudrait que les populations se mettent déjà dans le tête que sont dans un contexte de changement climatique. Là, ce n'est pas le secteur qui parle, mais c'est le, géographe spécialisé mhm. des questions en environnement. Mhm. moi, j'ai écrit mon mémoire en master sur l'environnement, sur les questions de changement climatique, mhm. avec des questions de l'horizon projet. Donc, je sais de quoi je parle. Les populations doivent se préparer à s'adapter au changement climatique à faire face, aussi bien les populations que les, les, les gouvernements. des changements climatiques, les populations et les gouvernements doivent faire face à des phénomènes extrêmes, des pluies des phénomènes en tout cas qu'on ne savait pas il y a des années. Il y a le raccourcissement aujourd'hui de la pluviométrique, mais également une accélération des, des pluies qui sont beaucoup plus violentes, fortes. en ce qui concerne la, question de l'inondation, c'est lié à la question de l'intensité de la pluie. Mhm. Aujourd'hui, une pluie te euh, wàllu changement climatique yi. Mhm. il faut que ñun ñu xam ne dañ nekk ci période boo xam ne dafa dafa am ay changement climatique. Mhm. te changement climatique am un dérèglement. Mhm. processus naturel yi. bu njëkk doon. léegi ci quatre mois yooyu presque taw bi da taw ci lu mat fukki weer wala ci weer ci ci ci bu ko yées. taw yi ni ñu daan étalé woo. dëkk étalé dafay nekk ay taw yu am doole yu gaaw yoo bi ni. Mhm. forcément day créer inondation. Mhm. parce si ci ñi utiliser inondation dañ naan. Mhm. li ëpp solo ci taw. du quantité bi. mooy mooy intensité bi. ndax mën na taw mille millimètres. mais bu fekkee mille millimètres dafa taw ci ay waxtu yu bëree bëree bëree bëri. ak ci période bu yaatoo yaatu. mën na ba indi inondation. mais mën na taw lu mat lu yées mille taw cinq cent millimètres.

réseau d'assainissement. bu waaw Mouhamed bëri na ci askan waa Mbàkke ñoo xamante ne bi dañuy jooytu ne oto mbalit bi du yegg si seen koñ mhm. euh, loolu aussi bëggoon nañoo am ay leeral bu ko defee ñu jot leen ko ñoom askan wi nga xam ne ñoom ñooy dëkkee ñaxtu yooyu. jërëjëf effectivement nekk waa Mbacke mhm. mais yem ci mu waxtaan ak UCG mhm. actuellement SONAGED mhm. ñu am benn convention ñoom tamit jël ñetti oto teg ko ci ñoom tamit jël oto yooyu noonu yëpp ñu nekk sur la gestion de de l'UCG ñu ma ko yoree entretien bi lépp tàmbal nañ liggéey bi euh, d'ici la semaine prochaine am na agent ñu koy gunge lu toll ci juróom fukki agent ñoom mhm. ñoo yore mbale mi mhm. ak lépp ñoo xam ne mooy nettoyé dëkk bi doolu léegi si ñi fi nekkoon ñi fi nekkoon mhm. mu amaat leneen mooy am na circuit bu ñu tracé woon il faut que nit ñi xam ni amul oto yi mënul egg fépp ndax am na koo xamante ni amul goudron amul tali oto yi mënuñu fa egg mais fii oto yi mën a egg yëpp incha allah dina fa egg fii oto yi mënta egg def rek ay point de regroupement normalisé wala ñu mhm. moo tax am na benn programme boo xam ne tëral nañ ko. Mhm. incha allah daañu ko def te mu di ñëw. Mhm. ñu woo ñëpp ñi xam ne ñoo ko bokk muy conseil municipal yi. muy bàjjelu gox yi. muy délégué de quartier yi. ak ñi xam ne ñoom ñooy commerçant yi nekk si yi. daanaka euh, bu ko tuddee tudd nañu ñi xam ne ñoom ñoom la mbay gën a ñu présenté leen. Mm-hmm. plan boobu noonu. Mm-hmm. waxtaan ci. Mm-hmm. ba validé ko. lépp lu si war a jël en compte. ñu jël ko en compte. mais mieux fekk dafa am ñoo xam ne ñu ngi liggéey parce que mbalit bi. du maire bi rek. am na ay charité privée yoo amee seen salaire. di ñu leen di fay di tuur ñoom tamit identifier nañ leen. regroupé leen.

c'est également les structures yoo xam ne dañuy jàppale médecins ce sont les, les privés, comme mhm. les charité, mais mhm. également c'est l'affaire des populations, de mhm. faire une gestion intégrée, un circuit fermement de toutes les parties prenantes de nous jouer sur le rôle. Alors, Inch'Allah, incha là pouvez déployer sur le terrain. ñu gis ni que de mettre une ville propre. une ville pour maintenir également les questions des déchets. Il faut une autre di problème de gestion. mais problème de traitement. c'est-à-dire réutilisation de ça nous fait transformer en énergie. en d'autres produits. mais

ñu war a def ay teg ko foofu. charité yi fi ñu war a dem ñu dem fa. population bi ñu a def ay points de regroupement normalisé loolu na ko amee. il faut que appel population joue le rôle. mooy ñu jël beneen jot ba par produit bi ñu koy sotti suuf yooyu aussi ce sont des problèmes de comportement. la question de la sensibilisation aussi. dafa def waxtaan ñoom. waxtaan ak jigéen ñi mbootaay waxtaan ak ñëpp. pour que ñu xam ni. soxla bu gën a ñaar. Mhm. daa fekk nga wér. Mhm. te wér bu ñu aajo ci. Mhm. aadam askan bu set. bu dund bu set. ak bu baax. loolu aussi ñu koy ñu koy fàttali. léeg-léeg tamit ñu nemmeeku ne askan wi dañuy jël mbalit di ko def ci mbedd yi bu ñu gisul oto bi rek dañ ko fay teg loolu aussi bëggoon nañ nga indi ci ay leeral bu bu ëllëgee ñu bañ koo defati lu mel noonu tey toog di xaar oto yi wala sareet yi. mooy li ma man bu bu ñëwee. ak ay kii. mais ils auront les numéros. ki am mhm. te lépp lu ci soxla mhm. zone bu ne dina am koo xam ne dañ ko bàyyi ay numéro yoo xam te ni mhm. à bu ñu amee lu leen ko woowee parce que oto tamit machine la mën na xëy suba ñu ne chaque jour fii la war a jëm mën nañu am l' information nañu aussi xool ba ñu jël après pour réglé ko moo tax yooyu da ciy am solo liggéey bi daal jàpp naa ne bu bu bu sottee lépp li xam ne mooy problème bu bari bi dina ko mën a ndax daan ñu am dinañu xam fan la jëm. Mhm. kañ la. Mhm. nan la. Mhm. naka la. ak bu amee difficulté. kan la ñuy waxal. loolu bu ko ñu amee rek yaakaar naa ni loolu mooy problème bi. beneen bi aussi nit ñi. ñu wax ñoom tamit chacun dans leur quartier. ñu ñu ñu ñu jouer seen rôle mooy. kenn bañ a nangu. ñu koy def mbalit li def nu naka su dul noonu. parce que bu xoolee loolu maanaam day def man samay neew si. ñun bu ñu dee jàng wàllu traité ay affaire ordre dañuy wax naan. nimbisme la nimbisme. nim bi mooy. not in my backyard. mom secrétaire municipal bi donte assainissement donut lo xamanteni bi maire bi moko gaddu gàddu waaye maire bi di ministre bi di galoba Ba jugu ci ben yoon nda waxtan nak njitu rew mi bam bolé won ko wa ONAS ONAS ñew ni fi ñaar yoon xol mbiri ni muy demee ñu wat mom mooy Mohamed sek nak ma ngay fessel na maire bi di galoba daf leen di wax ne sa su nek bu leen di diggé bàyyi leen ban défar ba paré ngeen sok di wax Mohamed sek nak nee mom amna am ne bu yagutul dara onance ONAS leen dik door liggéey bi Mohamed sek ci micro Sen 7